seen xarit seen soppe sëñ Sidi Ahmed si bu sunu wajur sëñ Abdoul Aziz Malick Dabakh lan moo xew mbokk yi gàmmu Diacksao programme u gàmmu Diacksao nii lay tëddee ajuma 17 février 2023 bu ñu julee ajuma ba pare dana def xaditul juma samedi 18 février bu ñu xëyee suba nan wàcc ay kaamil ñaanal mag ñi ñaanal réew mi yàlla def fi jàmm bu 15 heures 30 jotee ñu nekk cérémonie officielle ba bu guddee sëñ Sidi Ahmed si ànd ak sëñ ab sëñ Babacar si Abdou dem ca Faas fa Mame Youssoupha Diop nekkoon fa la jàng yi am sëñ sëñ Babacar si Abdou moo koy taxawe ñan ñoo koy woy Abdou Aziz Mbaye daaw góor ak njaboot Mame Moussa Allé sunu nijaay sunu kilifa El Hadj Mansour ngi ni toog yàlla na fi yàgg te wér jox ko kàddu gi mu jëmale ci askan wi. kay ñëw nu tuddee ko ko mu Cheikh Oumar Foutiyou ci nun sunu silsila nun sunu kër maam Cheikh Seydi El Hadji Malick mooy Cheikh Oumar ku ñëw <laughs> ah Thierno Bachir Tall ibnu Thierno Mountaga Taaha mooy ñëw ànd kan doomam ju baax ji Thierno Madani ibnu Thierno Mountaga ak kan ak doomam ju ji Cheikh Omar kon nag xam ngeen ni gi naka jekk gàmmu spécial lay doon waaye ren nag it spécial nu ko yëgal nag ki xam ni moom la yàlla teg ci bopp réew mi say doomu baay say xarit soppe le gardien de la constitution l'homme des grands projets de l'État président de l'espoir sa doom baay yaa ngi lay yëgal gàmm gi xam ni gànd gàmm rek la ci biir Sénégal le président Macky Sall ak kan ak le président de l'Assemblée nationale ak kan ah ak nag ki xam ne yaa ko tànn ci yaram ci tegginam na mu ko premier ministre ak kan ak ki taxamluwul daara yi taxamluwul jàkk yeeg jumaa yeeg église yi nu ko koy yëgal muy kan muy sa soxna Marème Faye kon képp kuy mu xaddam waxuñu rek mu xaddam waxuñu rek taalibi tijaan duñu wax ni képp kuy wax ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadu rasulullah sidi ahmed ibnu alhaaji abdoul aziz moom la magam yi jox ndigal pour mu taxawu gàmmum googu ànd ak mbokkam yu baax yi ñoom xaaj waxtaan kii ñoom alfahima yor ak rakkam yëpp cérémonie officielle ba nag Abdoul Aziz wax na leen ko incha allah kañ la waaye samedi la à 3h ban bés la nga ni samedi la bu 3 dem ca tant ba teeru délégation ministère bi président de la république yónnee ni jaay. waxtu date bi. samedi 18 février 2023. bés baa ngoog. samedi la wax di di 18 février 2023 muy bis mu mag bi nag ndax gàmm yëpp am na gàmm yëpp gàmm yu mag la de waaye nag béréb bii nag fa la sunu maam Cheikh Seydi El Hadji Malick nekkoon béréb bii fa la Sidi Aboubacar radiyallahu taala anhu daal dajeeg rakkam yu baax ya alaaji Mansour alaaji Abdou alaaji Habib ak muqaddam yi ñoom alaaji Rawaan ñoom alaaji Braga yi daayoo mag yëpp fu mu daal daje jag saaw ñu jox nag ndigal Sidi Ahmed ibnu alaaji Abdoul Aziz moom lañ su Sëriñ Ahmed bu mag ba moom ci boppam nag ak i rakkam ak i magam nooy taxu bis boobu nu bàyyi kàddu bi ak Sidi Ahmed Ibn Alaaji Abdoul Aziz bismillahi rahmaani mbokk yi gàmmu gaa ngi noonu ni ko alxaaji Mouhamadul Mansour Mbay waxe ak alxaaji Abdoul Aziz Mbay ñu ngi ñaan yàlla yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm gàmmu gi nag ren dañ ko terale kilifa goo xam ne ku nekk xam na diggante ak kër maam Seydil Hadj maam Cheikh Seydil Hadj Malick radiyallahu anhu muy njabootu suñu maam Cheikh Al Hadj Omar Al Fouti ka nekk tey ca bopp ba di xalifa ba muy Al Hadj Mouhamadul Bachiru Taal moom lañ ko terale ak njabootu maam Cheikh Al Hadj Omar Al Fouti radiyallahu taala anhu ak euh, mboole mbokk yi nga xam ne ñi ngi nekk itam ci biti te sëriñ bi seq ko ak ñoom daan dem di leen seeti. rawatina waa Europe muy waa Italie di waa Espagne di waa France di waa Belgique di waa Allemagne di waa Hollande di waa norvege di waa Suède di waa Angleterre ak ñu nekk Amérique ñoom ñëpp sëriñ bi mu ngi leen koy yëgal ak ñu nekk fii ci Afrique muy Gambie muy Mauritanie muy Mali muy Guinée muy Côte d'Ivoire ñoom ñëpp sëriñ baa ngi leen koy yëgal yàlla nañ ci yàlla yu ak jàmm. mbokk yi jox kàddu gi El Hadj cax mi nga xam ni mooy wax mooy woo ña nekk ca tund wa ñëpp ñooy xam ni bu jagsaaw jotee ca tool yi ñoo cee ñëw jox leen ak El Hadj Abdou cax mu yëkkati kàddu aoudu billahi min asheitan rajim bismillahi rahmani rahim mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu gannaaw bu ñu leen nuyoo ziyaara leen ñu ngi leen di fàttali xew-xew bi nga xam ne euh, ne mu daan amee ci jagsaaw moom leen leen di yëgalaat ni ki tey rab tàmbalee nag yëgle bi ci Fass jagsaaw bi nga xam ne fi la yëf yi tàmbalee Eh, di ko yëgal nag mbooleem daayira yi yëpp nag bàyyiwuñu benn daayira yi nga xam ne ñoo daan ñëw di ñëw teewe si gàmm gi ak daayira yi nga xam ne dañ daan ñëw itam pour jàppale sëriñ bi ca liggéey ba rawatina daayira bi nga xam ne Abdoul Aziz Badiane moo nekk ca kanam ak euh, seen présidente Mame Fall ak daay boobu la ñu ngi leen di soññ ñu ñëw di ñoom waa Sandiara yi ak bokk yi nga xam ne ñooy waa Kër Mbay Fall ak bokki Parcelles Assainies yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo ak bokki Saloum yi Kaolack bàyyiwuñu kenn waaye di yëgal waa tund wi itam jag saaw gu mag jag saaw gu ndaw waa eh, sancu siin waa daaru gay waa daaray saam ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo di woo tam waa kër xaasam yeeg waa fasel bàyyiwuñu benn dëkk waa xandan waa kuul ñu ngi leen di woo ñoom itam di woo waa Touba guy sagal bàyyiwuñu kenn di woo suñu bokki pël yi bàyyiwuñu kenn ku ci nekk la nga daan taxawee ci biir gàmmu gi daan ko dimbalee sëriñ bi ci wàllu taxawaay wàllu ñaan wàllu ñëw ànd ak yar ak teggin xam ne place ba ñu ñëw place ñaan la sakku ñëw fa ñaan fa say soxla ñaanal réew mi ñaanal sëriñ bi ak booleem kilifa diine yi ci dëkk réew mi képp kuy wax ashadu laa ilaha illa wa ashadu anna muhammad rasulullah woo nañ la ngay góor wala jigéen ngay mag wala ngay ndaw woo nañ la ci bis boobu ñu ànd ni ñu ko bëggee rek ñu taxawee ko noonu. Euh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi mbokki Sénégal mbokki jullit yi góor ak jigéen mag ak ndaw bàyyiwuñu kenn ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di yëkkati kàddu ci ndigalu suñu sëriñ suñu kilifa di suñu soppe Cheikh Sidi Aboubacar si Mouhamadinil Mansour ak i rakkam. Cheikhul Hadji malik si Abdoul Aziz Dabakh Serigne Babacar Sy Abdoul Aziz ko miin ci Ndiol Fouta ak rakkam yëpp ak mboolem njabootu Cheikhul Hadji Malick lu waral kaddu gi mooy yëgal leen bésu gàmmu Fass Diacksao ñu jàpp ko incha allahu taala ci ndigalu xalifa bi le 17 février tombeeg bésu ajjuma ak le 18 février ci ëllëg sa tombeeg bésu samedi ni ko papa Abdoul Aziz Mbaye waxee léegi ak Baye Alhaji Mouhamadul Mansour Mbaye kàddu gi mooy loolu liñ ci toftal rek moo di ñu ngi koy yëgal ñëpp di ci woo ñëpp bàyyi wuñu góor bàyyi ñu jigéen bàyyi ñu mag bàyyi wuñu ndaw rawatina sëriñu daara yi boroom xam-xam yi fa tabaarakallaahu toppe ko noonu ba ci ëttu këru diine ji bàyyi wuñu benn ëtt ndax ëtt bi benn ëtt la te ñoo ko bokk muy ëttu laa ilaha illa allah sayiduna muhammadun rasulullah sallallahu alayhi waaye di ci woo tamit kër yi muqaddam yi ñi nga xamante ni ay mbokk cheikhul xaaji malik la ñu di soppeem àndandoom di compagnon ñu àndandoo liggéey ci toolu yàlla ba seen wàcc liggéey jot ñu dem noppalu ji seeni njaboot wuutu leen fi bàyyi wuñu benn benn kër ñu ngi ciy woo ñëpp di ci woo nag soppe yi soppe yi ñu leen ciy woo di ci woo xarit yi di ci woo wëllëre yi di ci woo dëkkandoo yi di ñaan yàlla yàlla yóbbuñu si ak jàmm incha allahu taala di ñaanaat transporteurs yi ak ñi nga xamante ni ñoo leen di nekkal sur le terrain di chauffeurs yi ak ñi leen di jàppale jóg ndànk daw ndànk ak si ndànk wàcc ndànk ak ak jàmm incha allahu taala yàlla nañ ci yàlla yóbbook jàmm lépp luñ fa ñaan pour adduna bee tax ni ko sëriñ maam Alpha waxee waaye rawatina réew mi yàlla dool am na jàmm yàlla na ko fi yàlla dolli am na ndalte yàlla na ko fi yàlla dolli am na kaaraange yàlla na ko fi yàlla dolli surtout nag benn le xol yi xel yi mën a ànd di xalaatandoo di yëkkateendoo di tegandoo bàyyiwuñ ci kenn fa tabarakallahu ñu ngi woo ñëpp ku dégg communiqué bii daal appel bii daal ku ko dégg ku jotul itam lii mooy sa carte. alxaaji Abdoul moom la magam yu baax yi jox ndigal pour mu taxawu gàmmu gaw xoolal rek suñu avant premier bi Sidi Ahmed mii nag moom lañ tuddee sur Cheikh Ahmed Tidiane bu mag bi kii tëj kan la ah kii tëj ñeeg moo jël werd wa ca Cheikh Omarul Foutiyu di doomu sunu baay alxaaji Abdoul Aziz nu mu tudd maam Aliou Baye mu yoro moom la ñuy tàllal sunu rek mu sànni kàddu ñaan. salaamaaleykum. wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ci ndigalu suñu sëriñ suñu soppe sëriñ Sidi Ahmed si mu sàkk woon ñu sànni kàddu te def ñaan kàddu gi nag defe naa ni mat na ndax Haj Mansour jaar na ci ak ñoom papa Abdou ak kilifa yu tedd yi Maxtaar Sidi Ahmed Abdou Dia ñun dañuy jëfe ndigal rek xanaa di fàttali nit ñi rek ni Diegsaw béréb bu barke la béréb bu yiw la bërëb bu texe la toujours ma fàttali ko wax ni Makhtar Kébé mi mas nañoo yeew trois heures et demi jëm quatre heures ñu ñëw wuyu góor bi fekk ko ci salle bi mi ngi toog toog bu yaru mu nuyoo ñun waxtaan ak ñun ni ñu dama bëgg ngeen dimbalee ma gannaaw seen julli juróom su ngeen fi nekkee donte benn peru salaatul faatihi par vingt quatre heures ngeen jàng ko fi mun nañu ndax bërëb bi boromam ñaan na boroomam suñu tabaraka wa ba mu may ko ko mooy lu fi waay jaamu yàlla nangu te suñu leen nangulee benn peru salaatu fatix yi seen lépp mën na cee yéwéne ma leen koy ñaan mun mun ne nag boroomam ne woon na ku ngeen bañ ci moom nangam ak nangam ak nangam bu mu fi teg tànkam ah ñu yem foofu mu ñaan ñu dem yàlla nañ ci yàlla yóbboog jàmm lañ koy ñaan yàlla na ko yàlla nangu sotti ko ci àdduna bi yëpp kenn bañ cee ëppale Sénégal yàlla yokk fi jàmm yokk fi sutura yokk fi xéewal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nañ ci dugg ak bismillahi rahmani rahim génn ci ak alhamdulilahi rabbil alamin ci barke Cheikh El Hadj Omarul Fouti mi nga xam ne moom lañ ko séddee ci njiitalu Thierno Bachir Tall fa tabarakallah kon ñu jàng fatiha teg ci salaat al fatihi ayatul kursi yu lixlaas falaq ak naas yi tëjee ko salaat al fatiha ci ndigalu Ahmed